maaleykum rahmatullah si Habib maa ngi lay ziar bu baax a baax moom si Habib sama turandoo sama sëriñ eh, di la ziar bu baax a baax di ziar aussi ki nga xam ne mu autorité dëkk bi mooy le préfet Euh, ak maa ngi ziyaare imaam tamit bu baax di la ziyaara euh, vraiment tey di ñaan yàlla bés bi yàlla bu doon suñu bés euh, tey man ak sama délégation bi ma àndal tey fan yëpp ñu koy waajal dañu wax ni bës bi suñu bés la yi mun ñëw rek mooy sëñ Habib di gën a félilu suñu cordel ak yow parce que dañuy ñëw ubbil ñu bunt bi indi ñu nooto wan ñu lii nga xam ne moom si dëkk bi yalla def ni bëgg dëkk bi ñun nak aussi ay ndaw nañu dañ jóg pour jàppale son excellent le président Macky Sall diko jappalé ci walu wàllu émergence loolu moo ñun xaaruñu dara ci président ñi ngi def ay actes ay jéego bir Thiès jéego ñu def yow sa bop teg nga ci bët ñi ngi képp ku xam ku nekk bir Thiès teg nga si bët li mu ñëw rek dañuy ñaan Habib da ñëw di sakku sa ñaan euh, nga dolli ñu ñaan bu baax nga ñaan aussi son excellent le président Macky Sall président si boppam nga mu yàlla may ko ndam u au premier tour loolu ñu bëgg nga ñaanal ko euh, ñu ñaanal yàlla tamit mu yàggali mission yoo xam ne mu ngi ko jog a def parce que moom tamit comme la ko xam ne suñu Habib jot naa waxtaan benn waay bu ko gën a jege mu neew si boppam président mu ngi bàyyi xel bu baax ñoo jobaas xam naa incha allah du yàggati dina fi indi tamit ndimbalam bu baax a baax dina si jàpp bu baax di la gën a dooli rek di firnde bu baax Habib di la dooli nga di la sant bu baax a baax di la ñi xam ne ñu ngi si ginnaaw Habib loolu laa amul nga vraiment wasalaam salaamaaleykum. Iya, mu dem. sëñ Habib Niang. sëriñ Habib Niang. bii nga xam ne. bii nga xam ni. loxo ndeyjooru Macky Sall la. loxo ndeyjooru président Macky Sall la. mu jàpp ci bis bi jàpp bu rëy nag. mu jàpp ci bis bi jàpp bu rëy nag. kenn jàkkul koo jàpp ci bis bi kenn ñu koo jàpp ci bis bi nag ku ne jàpp na ci bis bi ku ne jàpp na ci bis bi waaye moom mii waaye moom mii kenn jàkkul ko cee jàpp kenn ñu ko cee jàpp yal na yàlla taxawu ko yal na yàlla taxawule Moussa Niang dolli la jàppale dolli la jàppale xam nga lu tax mu neex ma nee na xam nga lu tax moom mi mu neex ko man nit ñi jox nañ ma ay millions nee na moom nit ñi jox nañ ko ay millions jox nañ ma ko ba taay jox nañ ko ba taay waaye moom waaye moom dafa yaru dafa yaru am xam-xam am xam-xam nite nite bëgg réewam bëgg réewam ba pare xol bi tabe ba pare xol bi daal di tabe xol bi yaatu xol bi yaatu fu toll rek. mu ngi bëgg lu neex nit ñi. mi ko yàlla taxawoo. nee na yal na la bi. bis bis la. yow. ak jullit yëpp. ak jullit yëpp. kontaan nañ kontaan fukki nag ak benn. ren fukki nag ak benn. andi nañ ko fi. fukki nag ak benn. fukki ak benn. ak gëlëm. nañ ko fii ci bis bi. fa tabaarakallaahu fa benn nag ren nee na jëndul ko fi indi kontaan nañ kontaan li may wax rek man daal jàpp naa ne nee ma noonu amul noonu li ma jàpp daal li mu jàpp mooy aw ma ay soppe kese ay te nag jamono bii te li may wax nit ñi li muy wax nit bul def koo gis ne sama taalibe la ne sama taalibe la nel sama wóllëre sama wóllëre nit ñi buñ lay gëm buñ lay wala di la fonk wala di la fonk sa way jur a tax sa way jur a tax fa teg wala kala fa man nag moom moo fi teg sëñ Mansour moo fi teg moo tax nit ñi moo tax nit ñi bëgg ma bëgg ma sopp ma sopp ma yemale wuñ ma ak dara <coughs> fii fii di noota jobaas gi di noota jobaas li ma fi def li mu fi def waxuñu li ci kaw de mais li ci biir suuf si rek nga xam ne. nga xam ne fer. ëpp na 100 millions li ci biir suuf rek li ci biir suuf si waxuma la ak li kaw. waxuma li kaw. boo ko booleeg li ci suuf si. ëpp na 300 millions. ëpp na 300 millions. te. te loolu. kenn déggul ma ci lu neexul yàlla. kenn lu neexul ma am rek. lu ma am maa ngi koy def fii rek. maa sumb naa beneen boo xam ne. sumb beneen boo xam ne. def naa ci quatre-vingts na ci quatre am na boo xam ne. am def naa ci soixante millions. def na ci soixante millions. loolu barke Serigne Mansour. loolu ci ngi nii. di suñu waay. Nooto Jabaas. bu Nooto Jabaas. préfet bu moom. nit ku baax la. nit ku woyof la nit ku woyof la yal na ko yàlla taxaw ko taxaw dooli ko jàppale dooli ko jàppale dooli ko sutura kontaan nañ trop imaam tamit imaam nag imaam Medoune imaam Medoune amuñu fayam amuñu fayam moo Cheikh Souleymane Diaw moo Cheikh Souleymane ñu ñu ngi leen di gërëm ñu leen di gërëm di leen ziar di leen ziare di leen tatagal di leen tatagal bi bañ ko jàppee ba léegi amuñu jot amuñu jot ñu ngi ci guddi ñu ngi ci guddi ñu ngi ci bëccëg kontaan nañ ci yéen kontaan nañ ci seen liggéey ci xadara bi seen liggéey ci xadara bi fu ko nit natt fu ko nit weesu na monsieur Habib nga xam ni mooy président mouvement Suxali Thiès ànd Suxali Suxali Thiès tabaarakallaahu yow Thiès méréwu la parce que lii buñ koy wax dañ koy wax ci kanam sëriñ bi moom xëj na jot a may ko ne mais man mbooloo yi nga xam ni dañu daf ma leen dénk moom ñi leen dénk ma dañoo bari may jëfalante ñoom ku ci ne wax na fi nga jaar ak moom te bi nga koy def rek da nga ko def sans intérêt ngir dimbali Thiès taxawu Thiès ba makki Sall xam ne am am na nit koo xam ni day def te yàlla tax pour xam ni président am na loxo tabaarakallaah loolu nag boo ñëwee suñu sëñ taxaw sëñ Abi Gueye mu xaddam Cheikh Sëñ Mansour wax li mu wax ci yow jaadu na ñu seedeel ko ni ko lii mu def ci yow moom la taxawee Thiès tabaarakallaah yàlla yàlla taxaw la bu tedd bii ngeen gis mu toog di Serigne Habib Gaye di muqaddamu Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour borom daara yi yàlla na sunu borom guddal fanam yàlla aar ko yàlla sàmm ko yàlla sutural ko moom ñëpp la seqal jàmm adduna bi yëpp la seqal jàmm waaye yàlla dogal na dara feesul bëtam lu dul Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour borom daara yi tey jii nag muy journée boo xam ni da koo def jagleel jagleelu ko kenn lu dul Seydina Muhammad tey amul xeetu autorité bu teewul fii tey mbokk yi maa ngi leen wax ni gaynde piire ngi jàmbaar piire ngi ku dëggoo ngi ku am fulla ku jàpp njàmburam Serigne Habib ñaar délégation bi nga àndal nu gis ci Omar Deme gis ci daam saaxo ku ne dako wara jank abib nya billahi la ilaha laay les li serigne abib wax ci yow ci yar xawuma la tay laa la door a gis waye yar bi mu wax kuy politicien war nga ko roy ci mom nit day yaru nit day am discipline anil mar ila la wa sël an qarini ان القرين بالمقارن يقتدي دي فوا لي غاي نان لي نو دي سي دي دي مي سي فري les non-dits c'est des dits mais c'est vrai nit day disipline discipline li ma neex xawma la xawma marabu wax nga ni ko yaru la wax nga ni kenn njëkk ko ci bis bi mais estafam laa xam sama jigéen ñi ci ginnaaw du ma tudd seen i tur damay juum monsieur Habib honorable président dama lay xamal ni la ku mën Mansour bàyyi xele ngi ku Serigne Mansour jox loxo ngi ku mën Mansour am yaakaar ngi xam ngeen Serigne Mansour borom daara yi li mu ijaasaal ci Sénégal ni mu toll sëñ Medoune bu nee sëñ Habib ñi may ijaasaaloon ñëpp jël nañu seen ijaasa nëbb ko yow donc yaa ma ci liggéeyal am na lu tax gars yi nañu bàyyi iññite iñañ yi ak iñaan sëñ Habib tubaab nee na quand les gestes parlent les paroles sont kenn mënu laa tee avancé sëñ Habib nag yow man man xaw ma sax nu may wax Habib sëñ Habib sëñ monsieur Habib sëñ Habib monsieur Habib ku mu neex dina dox ci yow ku mu naqari dina dox ci yow ndax lool lañu jàngal lool lañu ñu xamal gay yàlla na yàlla guddal sa fan yàlla yàlla aar la sàmm la gannaaw yàlla moom moo nekk ci bopp réew mi amee jàmm réew mi am jàmm bu amee yokkute réew mi am yokkute kon la ñaanal ko yàlla gën a woyofal yenn wi yéene mu am ci réew mi yëpp mu mottali ko parce que président yéene bu rafet la am ci réew mi bëgg yóbbu réew mi fu ñu mel ni sëñ am bii di ko jàppale ñoom aussi ñu jara ndokkale la ku jàppale président rek réew yi yëpp nga jàppale man politique ko wax sama moom néew ci politique waaye ku jàppale président nga xam ne moom laa nekkal fii jàpp naa ne réew bi yëpp nga jàppale kon suñu am ñu ngi lay gërëm ci teewaay bi di leen wax ngeen gën jàppale njiitu réew mi parce que moom li euh, jëmale askan wi kanam suba ba ngoon ci la nekk boole ci waxtu bu bari mu ngi def liggéeyam kon ku mel noonu dañ ko war a ñaanal yàlla gën ko yokk ba yéene bu mu am ci réew mi en tout cas mu mattali ko ah gox bi nag nga gën ñu jàppale aussi parce que Notto yàlla def na euh, du dëkk bu bari koom-koom ah tur bi aussi daanaka ñu bëri sax dañ koy jaawal ak beneen nootu bi pour wax la ne am na lu bëri war na fi dikk peut-être ñëwagul mais comme yàlla indi na la fi yow naa xéewal yi dinañu gën dugg ci dëkk bi kon njaboot bi daal dénk naa ko te njaboot bu nekkee ci jàmm ci jub di def lu baax ñun dañuy noppal kon jeunesse bi bari na ñu ngi fi macha allah nga gën ñu leen jàppal gën leen teg ci yoon yar leen ci diine te loolu vraiment am nañ ci yaakaar sëñ Ayib nag sëñ Habibou ñëpp la moom